nakkar ak tiis la point com yeewoo tey niki lundi Euh, yemook euh, juróom-ñeenti fan si euh, vingt 2022 si weerub août bi ñi nga xamante ne moom lañ nekk ki nga xamante ne nag mu ngi wuyoo si turu Pape Adama Niang ay atam toll si fukki at ak ñeent moom nag moo daal di ñàkk bakkanam fële ci géej bi ñu naan gàddaay ginnaaw rek ba mu àndee woon si samedi bi ak ay tam ñi nga xamante ñu ngi wuyoo si turu Khalifa Mbaye Babacar Ngom Assane Sarr Khalifa Sène ak kii di Ahmed Mbaye ngir rek ñu amal benn match de football comme ni ni ko xale yi daal di ko faral di ko amalee si plage yi bu vacances jotee moom nag ba ñu pare seen euh, match boobule moom moom di wuyoo si turu pap aadama Niang dafa daal di rek ne xaritam yi maa ngi dem lenkali sama yaram di dindi suuf si nga xamante ne moo si takk bu ko defee ñu daal di ñibbi moom nag ba mu demee taxaw nag euh, nekk si biir ndox mi ki nga xamante ne moom mooy Khalifa Mbaye jékki-jékki saay rek dégg euh, turam kii di Pape aadama Niang nga xamante ne moom moo daal di des si biir géej gi doon yuuxu turam mu daw di ko dem di ko jàpp ngir euh, sauver ko euh, faral yàlla nag mujj ko sauver moom moomu sax di Khalifa Mbaye mu ngi xam ne ni euh, mujjee moom moo mujjee laal li nga xamante ne moom mooy cëru kii di Pape Adama Niang mu doon mbir mi nga xamante ne nakar la tiis la métti na loolu fii si géejawaay waaye rek ñi nga xamante ne ñoom la ñu àndaloon mooy Khalifa Mbaye ba tey di Babacar Ngom Assane Sarr Khalifa Sène Ahmed Mbaye bañ leen bañ leen fekkee fi nga xamante ne mooy seen i dëkk waaye ñoom ñëpp dañoo seen xol neexul parce que nee nañu ki nga xamante ne moom mooy Pape Adama Niang xol bu rafet la yoroon ku baax la ku tabe la woon waaye rek nekkoon koo xamante ne saa su nekk bu nekkee seen biir rek doo ñu noppi duñu euh, fas seen kanam ndax rek moom moo nekkoon seen comédien maanaam koo xamante ne deret bi dafa neexoon donc ñoom ñu jàpp ne rek am nañ manque bu rëy a rëy si seen biir groupe waaye rek euh, li nga xamante ne jot nañ ko information mooy euh, corps bi nag barki démb la si euh, li nga xamante ne mooy géej gi mooy samedi ni ki dimanche la ko sapeur pompier génnee jamono ji ñu wax ak yéen nag euh, lii di kooru Pape Adama Niang mu ngi fële si hôpital CTO bañ demee nag si euh, këram ñu ngi fa fekk nag ay dëkkandoowam njabootam geeg papaam yaayam ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ak Pape Adama Niang rek ñu ngi si hôpital ba fas yéene rek amal benn autopsie levée du corps bi nag ñu ngi koy daal di programmer ëllëg incha allah rek si kattan suñu borom ñu fas suñu borom euh, fa fële sa cimetière bu yoof lépp lu taf taftal comme information dinañ leen ko xamal fii si euh, kawtef point com jërë ngeen jëf